mel na li waral jotaay bi nag taxawaa daayiratu Minanul Baaxil Xadim def ko amal ko tey moo di ne dañoo gis ne ci weer wi ci ba euh, dëkk bu tedd bi bu ñëwee dañuy gis ne dañuy dundal weer wi ndax loolu mi ngi tàmbali woon ci sëriñ bi ñu gis ne nag barab bi bu ñu xoolee ci taarixam amul benn barab bu ko gën yeey wala boog bokk na ci barab yi gën a yell ngir ñu dundal fi weer wi ndax sëriñ mun Muntaxa ku fàttaliku bi ñu ko defee jàkka moo fi ñëw julli fi ñaari ràkka joxe ndigal ñu def ko jumaa te tey moo fi nekkal sëriñ Touba. kon nag bu wootee moom dundal xam-xam ba noppi di ko doxee di dundal weer wi kon ñun itam war nañ cee euh, dox suñu waar moo tax daayira bi tànnoon ajjuma tey gi ak ajjuma ji ñu jëm incha allah ngir dundal euh, bis bi ci def ci ay waxtaan Euh, mu mel ne nag tey tomb bi ñu tànnoon ngir waxtaane ko mu ngi nekkoon alxalaalu wal xaraam fii mansaati taamuli di moo di jëflante yi ñuy jëflante ci wàllum banque yi wala ci commerce yi wala ci lépp bépp jëflante bu aju ci xaalis rek ana lan la ci lislaam araamal ak lan la ak lan la ci lislaam euh, daganal ndax dañoo gis ne jamono xëy na nit ñi bëgg nañ lu baax waaye nag xiir gi ñu xiir ci alal tax na yu ci baree bari séggatuñ ko ba xam sañ nañ koo def wala sañuñu koo def loolu nag ñu tànnoon ci mbokk mi ñuy wax Soxaay bu Jóob mu dëkk ci dëkk bi ngir mu defal ñu waxtaan wi feggoo ci ak sëriñ bàcc silla moom it ñu xam ko lool ci barab bi ngir bu noppee mu indi ci ay kàddu yu mu ciy dolli xam naa ngir xamle mbokk mi rekk ngir ñi nga xamante ne ni xëy na xamuñu ko tey teewlu waxtaan wi ci sidi yi wala boog suñu koy mën a teewloo moom Serigne Souhaïbou mu ngi jàngee dalee ak njàngam alxuraan fii ci dëkk bi ci daare Serigne Habibou mottalee ko Dakar ci internat Serigne Mody Guèye yi ginnaaw bi mu noppee dellusiwaat na fii ci dëkk bi doon fi jàngale ci daare ji nga xamante ne ni maamam moo ko sosoon waaye doon ko booleeg jàng xam-xam ci daare Serigne Habibou ci Serigne Bara Mbacké ak Serigne Abo ba jàng mboolem téere yi nga xamante ne ni miin nañ koo jàng fii ci réew mi lu ci mel ne maqaama ak e, xaliil ak yooyu yëpp yàlla dogal na jàng na ko ba noppi ginnaaw bi la nekk ndaam ci al azhar doon fa jànge ginnaaw bi dem na fi Mauritanie yoon bu gàtt waaye ci la dem Égypte nekk fa ba fa la amee bac bi mu ñëwee Égypte yi ni fa nekkoon ci al azhar école boobu nga xamante ne nii université boobu ñëpp xam ko ndax moom la Serigne Mountakha e, Serigne Mountakha tuddee école am yi kàngam yu bari it jaar fa eh, bi mu ñëwee it dem na université Cheikh Anta Diop def fa benn at ngir def fa langue français ndax ci arab la doon jàng jamono jooju bi mu noppee ci la dem IAM fa la nekk di fa jàng ba am fa licence eh, ginnaaw bi ci la dem France Istanbul eh, foofu nag fa la amee master ak massa 2 Euh, bi mu ko fa amee nag jot na faa tàmbalee liggéey ci banque postale foofu waaye ginnaaw bi nag ci la delsi fii ci Sénégal ci atum 2019 di liggéeyee fii ci banque islamique euh, yoore fa nekk koo xamante ni euh, spécialiste la ci wàllum finance islamique te finance islamique ku ne xam na ne jamono ji yitteel na àdduna bi ndax mbooleem réew yi nga xamante ne nii sax xëy na nekkuñu ay jullit gis nañ crise yi xew ñu xam ne finance islamique rek moo leen ci mën a génnee ba tax ñi commencé soppi seen i jëfin euh, ngir insérer banque euh, finance islamique ci seeni i doxin moom nag ci wàllu woowu ci la spécialiste wu te ci la yëngu ci wàllu euh, fële ca banque islamique ci seen siège bi nekk Dakar kon moom la ñu dalal tey ngir mu indil ñu li nga xamante ne ni moom la wàcc ci tomb boobu kon xam naa moom la ñuy jox rek mu defal ñu waxtaan ci lu tolloog xëy na ñeent fukki minutes bu noppee ñu jox Serigne Bàcc Silla mu def ci ay taalixaat ci lu tolloog fukki minute ak juróom bu noppee tamit ku bëgg am ay laaj euh, waajal nañ ko ngir fukki minute yoo xamante ne nii ku am lu ko bëgg euh, lu ko leerut ci waxtaan wi te mu bëgg mu leer ko wala lu mu bëgg loo xamante ni daal soxla na koo xam ci lu jëm ci wàllu woowu ñuy waxtaane incha allahu rabbi jagleel nañ ko fukki minute yu ñu koy tontu am na mbokk mu koy jël muy jël laaj yi bu noppee ci laaj yi am na kàddu gi ñuy jël ngir waa daayira bi ngir xamale daayira bi leeral ko su ko defee ana lan mooy ay yitteem ak lan moo ko tax a jóg bu noppee nag ñu jox kilifa yi ñu jël kàddu gu mu gi ñu daal di ñaan su ko defee ñu mën a dellu ci kër ya eh, mën a ndogu ji insha allahu rabbi balaa waxtu wee jot kon xam naa dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Soxay bu bismillah aoudu billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi tahirina ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooleem ñu fi teew ñëpp di leen ziyaara bu baax te leen di dogal ngànt lool nag ci kàddu yi ñu yëkkati fii nii kanamu suñu ay kilifa ak suñu ay mag ak uh, ci kanam borom xam-xam yi nga xam ne itam ñoom lañ fekkoon di tudd ak suñu bàcc xëy na mu doy nga xam ne barab bi moo fi dundal lii nga xam ne mooy xam-xam ci jaare ko ci ay waxtaan yu mu fi amal ba ci ay xutba yu mu fi amal kon day mel ne lépp lu ñu fi yëkkati ci kàddu yu jëm ci xam-xam itam moo gënoon a yell ci ci ci amal ko ba def ko rawatina nag bu jëmee ci tomb boo xam ne daa mel ne ay gëstoom ci la gën a jëm muy tomb bi sëñ Modou wax léegi xëy na kon cërale gi ñu ko cëralee ngir ñu gën a yaatal gën a waxtaane xam-xam ñu gën koo génne gën koo yaatal xay na mooy jubluwaay bi waaye yaakaar naa ne mënuñ fee wax lenn loo xam ne luy dolli la ci ñoom ak ci borom xam-xam yi fi teew yëpp moo ñu ngi leen ciy dogal ngànt bu baax a baax tey ziyaare mbokk yi fi teew yëpp di leen nuyu lu bare bari di leen ndokkee itam ci weer wii nga xam ne ci lañ nekk di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ñu yett ñu yeggale ko ci jàmm te buñ ko yeggalee itam suñu borom defal ñu tawfiq ñu daje cee ngërëmam lépp loo xam ne doon nañ ko ci kër kër yi itam suñu borom nangu ko te gërëm ko te ful ko te def weer wi ci ñun ñëpp muy weeru njéggal di weeru yërmande di weeru itam ak njot ci sawara ci ñun ñëpp comme ni nga xam ne noonu la ko suñu boroom diggee jullit ñi sellal yal na ñu ko defal def ko itam ci ñun ñëpp muy farug bàkkaar yi mujj ak yi njëkk bàkkaar yi weesu woon ak yi ñëwaat yëpp suñu borom faral ñu ko ci barkeb weer wi yal na ñu ko yàlla defal ci barkeb sëriñ bi xam naa ci lu gaaw rek incha allah ngir eh, dugg ci kon ci tom bi nga xam ne moom la sëñ Modou wax léegi te mooy li dagan ak li araam ci jëflantey alal yi daa mel ne noonu lañ tudde tomb bi muy itam waxtu waxtaan tem boo xam ne bu mat a bu mat a waxtaane la fii mu ne ci jamono ji surtout ñu tollu tembe tembe xam naa ngir jéem a gàttal lool luñ man bu dañuy jéem a rek tënk tomb yi ci ñeent incha allah mooy wax njëkk a wax ci riba ak ci tere gi nga xam ne suñu borom da ko koo tere ndax tomb bi ci boppam moo moo taqoo ak riba lool ndax lu dagan ak lu araam ci jëflantey alal yi daanaka boo ko waxee rek riba nga wax ndax am na ñu koy xamlee moom riba ne mooy bépp jëflante ci alal joo xam ne wàcc na wàcc na charte ya suñ borom teg ne jëflante ci alal ca la war a dox bépp jëflante ci alal boo xam ne wàcc na yooye charte rek lu ca dolliku wala lu ca juddoo loola am na ñoo xam ne moo tudd riba kon tomb bi ñu tànn nii daa taxoo lool ak riba ba nga xam ni buñ ci dugg yaakaar naa faaw ñu waxtaanee riba bu baax a baax ak tere gi nga xam ne suñu borom tere na ko ko bu ko defee loolu moo ñuy may ñu xamle riba ci boppam ak fan lay dugg ak fu du dugg ndax ci jëf yan ci ci yan jëflante lay dugg ak ci yan jëflante lay dugg loolu itam mat naa xam ndax jamono ji ci boppam mën na laaj laaj na ñu fàttalantewaat ñu fàttalantewaat loolu. bu ñu noppee ci loolu itam daañu wax xëy na ci uqubaat wala ci daan yi nga xam ne suñ boroom teg na ko képp kuy jëfandikoo ribaa fii ci àdduna ak fële ñu jëm mu yàlla xira itam suñu boroom am nay daan yu métti yu ci teg loolu itam incha allah dinañ ci dellu si ci fàttali bu ñu jógee ci loolu nag xëy na ci tomb bu ñuy mujje mooy tudd yenn nat ci ay misaal ci ay exemple yoo xam ne ci jëflante yi xew Euh, yoo xam ne riba da ciy dugg ci jëflante yi xew ñu koy jëflante te muy loo xam ne buñ ko seetee mooy mooy mooy riba bi suñu borom di tere te mu xew lool tasaaroo lool ci jamono ji tam loolu tamit incha allah ñu jëm cee euh, tëje waxtaan wi bu soobee yàlla. comme di tam ni ko ni ko sëñ Modou waxee woon léegi mooy tomb la boo xam ne daa mel ne waxtoom fàttalante ko jot na lool ndax. seetlu yu bare bari ci nit ñi euh, xër giñ ñu lool ci wut wut alal ak di ko dajale yóbbu yàgg na ci daanaka bàyyeetuñ xel lool yi nga xam ne moom la ci suñu borom tegoon ci ay limite yoo xam ne dafa santaane ne buñ ko ci weesu xër googu yóbbu nañu ci daanaka euh, bari na lool jëflante yi loo xam ne nit ñi seetatuñ ci léeg-léeg sax xel da xel du ko daj nga xam ne xëy na sax mën naa am xamoon nañ ne lii lu ñuy tere la waaye jamono bi ñuy jëflante ngir xër ci dajale mën naa tax xel du dajate ne lii kat luñ tere woon la loo xam ne jëflante boo xam ne riba la te itam muy bokk ci euh, yiñ tere yi ci gën a mag yi ci gën a euh, suñ borom yi mu ci gën a teg ay daan jëf jëfandikoo riba ci la bokk loolu itam xëy na dinañ ko dina leer lool ci biir waxtaan wi incha allah ba noppi itam tere ko tere gu leer boo xam ne amut sikk amut lënt doo mu dégg mukk borom xam-xam yu werante ci ndax riba luñ tere la wala luñ terewut moom duggut ci yu ñuy yu ñuy werante ak yi lënt yi moom tere gu leer la ko suñu borom tere e, fi ñuy tere fépp tamit ci chariatul islamiya tere riba nekk na fa e, waaye nag malgré loolu yëpp. daa mujj doon loo xam ne daanaka ñëpp ci tàbbi ñëpp ci tàbbi léegi néew na lool wala boog jafe na lool nit kuy dund ci jamono jii ñu nekk te du tàbbi ci te du tàbbi ci riba te loolu nag daa boo amee buñ ko seetloo wax dëgg tiitaange dëgg lay lay jur ndax daa am yonent bi alayhi salaatu wasalaam xaris bu mu ne jamono dina ñëw joo xam ne nit ñëpp doo gisati kenn lu dul ne rek day jëfandikoo riba moom koo gisati ci jamono ngi ñëw joo xam ne koo gisati rek day jëfandikoo riba moo xam mu di ko jëfandikoo wala ñu moo xam mu di ko fàggu wala ñu di ko fàggu di ko ko yët waaw mooy dina jëfandikoo riba soit moo xam da koy lekk wala day pëndub riba bi da koy da koy da koy taq man la ko waxee woon la yatiyanna ala nnaasi zamanun laa yabqa minhum ahadun illa akilu riba fa man lam yakulhu asaabahu min gayri muy xadis euh, boo xam ne itam buñ buñ xam la Ahmad nettali ko Abu Daawud nettali ko ñëpp nettali ko waxaat na itam ne. ci jamono ji jamono jooju mu wax itam boo ko seetloo am na benn xadis bu mu taqoo bu mu nirool lool boo xam ne dañ ciy seetloo ne jamono jooju mu wax ne mi ngi ñëw te ko amul kenn ku mën a mucc ci riba ci jamono jooju day mel ne mujjug jamono la ci jublu woon kon te suñ jamono ji itam niroo naag lool jamono yooyu muy wax ndax dafa beneen xadis bu muy waxaat ne mujjug jamono dana ca feeñ juróomi jikko juróomi jikko yi mu ne mooy jëfandikoo riba ak e, njaalo mooy góor ak jigéen juy seq te dañ ca wuñ ak bari lu ñuy giñ lool ci jëflan ci jënd ak jaay te ngiñ la wérut lañ cay wax wérut mooy warante rek ci jënd ak jaay ak di wàññi balance yi ñuy peser walla ñu koy wala mesure yi ñuy natte koo nattal kilo mu manqué koo mètre koo mesurel mètre mu manqué tey jii nii misaal mi la gën a jege suukar boo koy jënd ab kilo mbuus gañ koy def lañ koy faseeg lépp day duggaale ci kilo ba te yow kilo suukar nga jënd normalement su la la ca nekk ci suukar bu ñu la ko pesé woon su manqué kilo rek dugg na ci li yonent bi doon wax te amatul daanaka dara lu ñuy pesé fi mu ne di ko def ci emballage te emballage ba boolewaale wuñ ko ca la ñuy la ñuy natt kon juróomi jikko yi mu wax yëpp daa mel ne yu tasaaroo la ci suñu jamono ji te dafa waxoon ne fa ida fa ida zahara fihim dalik waqaa fihim jamia al amrad wala waqaa fihim jamia al amrad mu ne tey jikko yooyu saa bu feeñee ci ci ci jamono jooja mbooleem feebar yëpp wàcc bu defee nga seetaat ko ba léegi ci jamono ji ñu nekk bis bu set feebar bu yees ñu dégg ko bis bu set daanaka bu weesoo yi ñu daan njëkk a xam nga xam ne jabet jaar fi di faagaagal cancer nekk fële di faagaagal bu yàggut insuffisance rénale xew fi lool léegi-léegi baisse de tension yi am barki démb lañ déggaat jàngoro joo xam ne mi ngoog li ci leer ak li ci leerul kenn xamu ko li ci leerul ëpp fopp li ci leer liñ ci xamut ëpp fopp liñ ci xam waaye lu mën a xew mu bokk ci jàngoro yi suñu borom di wàcce ni nga xamee ne waxtu jamono ji ñu dafa mel ne waxtu wu nekk jàngoro yaa ngi wàcc te waxoon na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne saa boo xamee ne juróomi jikko yii feeñ na ci jamono rek jàngoro yëpp dinañ dañu tàmbalee wàcc loolu itam bokkaat la ci tax mu mu baax lool ñu fàttalantewaat ci tomb bi nga xam ne mooy riba ndax ci juróom yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon mu ngi ci waxaat na sax ci beneen xadis boo xam ne Tabaraani nettali na ko ne moom riba ak njaalo saa bu ñu feeñee saa bu ñu saa bu leen aw nit de de de de de su ko aw nit de jëfe de jëfandikoo di jëfandikoo riba ak di njaalo nee na xeet bi koy def na leen wóor na dëkk boo xam ne loolu tasaaroo na fa na leen wóor ñoom dëkk booba ne ñoo daganal seen bopp ñoo daganal ci seen bopp mbugalum yàlla ñoo ko daganal seen bopp ida zahara zina wa riba fi qarya faqad axallu bi anfusihim adab allah saa boo xamee ne ñaar yooyu feeñ nañ ci ab dëkk rek waa dëkk ba nañ xam ne léegi nag ñoom ñoo avertissement bi jox naa leen ko kon ñoom ñoo daganalal seen bopp mbugal mi nga xam ne moom mooy wàcc ci seen kaw. boo xoolee itam nattu nattu yeeg xat-xat yi jamono jeeg yépp ci yi wàcc suñu jamono ji da ngay xam ne maanaam mu dugg foofa kon day mel ne sax sabab yi ñun xam nañ ko ndax yii ñu wax ni yépp daanaka waxtu wu nekk ñu ngi koy ñu ngi koy teg ñu ngi koy gis di ci di ci teg bët. kon boo seetloo moom riba moom da ngay gis ne daa daa bokk lool ci mbooleem daanaka yu ñaaw yi ñaawtee fi nga xam ne yonent bi tëkk da ci da ci da ciy teg ay avertissement di wane ne ñi koy jëfandikoo am na yu leen di dal saa daanaka xadis yi ñëw ci loolu yëpp rek dina ci dugg dina ci bokk kon nag dina dina jaadu bu baax a baax ñu ñu taxawaat ci fàttalante fàttalante waat fàttalante waat ci ndax day mel ne dañ koy xeeb léeg-léeg tuutal ko mën na am sax ñu bari duñ ko dugal ci bàkkaar yu mag yi te ci ci gën a mag yemut sax ci yu mag yi waaye ci gën a mag ci la bokk tere gi nag comme li ma wax léegi rek fépp fu ñuy teree ci lislaam rek boo fa demee fekk fa tere riba moom alxuraan a ci njëkk ci ay yoon yu baree bari yoo xam ne suñu borom bu ci njëkk da koy dafa ñëw wane ne njariñ nekku ci alal ju mu dugg tamit lu mu niru niru lu koy lu bari alal jooja barke moom du ci nekk alal ju barkeel nag mooy ju munta faj ju barkeelut mooy ju munta faj soxla rek léeg-léeg nga gis ku bari alal lool waaye daanaka soxla su mu am ñu ñu ñu yëg ko moo xam ci banque yi lay dem moo xam ci yeneen barab lay dem waaye daal alalam moom fajut soxlaam suñ borom teeloon naa wax ni alal joo xam ne riba dina ko rax alal jooja moom du du du sakkan du sakkan mooy du barkeel rek ci aaya gu njëkk gënoon la ko aayee booba itam aaya ak ñaareel gi nag mu wàññilu ko nga xam ne dafa bu njëkk boo ne na amul njariñ bu ñaareel da ko wàññilu bu ñetteel bi nag ci la ko aayee aaya gu wér moom boo xam ne moom maslaatu ci eh, ba noppi teg ci daan yu méttee metti aaye xeeti woowu itam xeeti stratégie boobu itam firiwut na riba daa mus a baax ndax xeet yu njëkk yëpp suñu borom aaye woon na leen ko ndax moo ko wax wa axdihimu riba wa qadnuhu anhu ba muy wax ci yahudiya dafa wax ne daan nañ jël jëfandikoo riba te fekk ma aaye woon naa leen ko kon jullit ñi bu dee jaar ak ñoom ci étape yooyu da doon leen ndànk-ndànkalal ndax nit lu taq ci xolam mu koy jëfandikoo waxtu wu ne ndax yahud ma yi yooyu daa bokkoon ci lañ daan jëfandikoo mook sàngara même sàngara ko seetloo tere gi noonu la jaar dañ ko def ay étape ndax nit li taq ci xolam boo ñëwee ñëw rek ne ko bako su ma tuddee mi ko koy aaye yow lay bàyyi waaye du bàyyi loola moom. moo tax li gën mooy nit bu amee lu nekk ci xelam lu nekk ci xolam yoon wi gën a jàppandi ngir jëlee ko ca mooy wi suñu borom jaar ak jullit ñi ci riba ak ci sàngara mooy njëkk leen a ñàkk xemmeem looloo la ba noppi bu ca jógee wàññiloo leen ko sax wàññiloo leen def bu nga xam nga boo ko wàññee ba jëfandikoo gi bareetu bu yàggee rek bàyyi gi da yomb ndax dina lam lam place ba mu amoon ci sa xol day wàññeeku mu doog ñëw aaye ko nag aaye gu aaye gu aaye gu wér xadis yonent bi tam boo ci demee muy sunna dangay gis ne daanaka dañuy wax ne xadis yi ci gën a dëgër yi gën a wér mooy yi nga xam ne tawaatur da cee am nga xam ne mbooloo moo xam ne mu dul mu jeex mu dul jeex mu bare bari ab lim boo xam ne ñoo nett li ndoo xadis bi loolu itam moo am ci terek riba Euh, tawaatur moomu dafa am la dafa am boo xam ne ci baat yi nga xam ne niñ ko waxee benn la am loo xam ne ci maanaam bi la bu dee tere riba xadis yu dul jeex ñëw na ci xadis yonent bi di wax ne di wane ne dañ ko tere moo tax du jar jaar xadis yu bare bari la daanaka téere xadis boo dem fekk ko fa xëy na ñaari ci jël rek mooy bi jaabir di nett li di wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam rëbb na képp koo xam ne day jëfandikoo riba ak ki koy joxe ak ki koy bind ak ñi koy seede noonu la ko noonu la ko waxee daal di wax ñoom ñëpp itam ñoo yem ñoom ñëpp ñoo yem xëy na circonstance yi leen ci dugal mën naa bañ a yem waaye euh, kenn ku nekk ak la ko ci dugal waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu def mooy rëbb na ñoom ñëpp wane na itam ñoo yem ñoom ñëpp ñu jëfandikoo ñu jëfandikoo riba lañ ci beneen xadis itam boo xam ne mi ngi ci ñaari ñaari sax ñaari saxe yëpp saxil Buxaari ak saxil Muslim yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ci wax ci mooy sa xadis bi bi jàngale as-sab'a al-mubiqaat mooy juróom-ñaar yi nga xam ne yonent bi dafa wax day alke day day képp ku koy laal dina la alak moom itam dugaloon nañ ko fa yonent bi dafa wax ne bés maytandiku leen juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy alage ñu laaj ko yooyu yan la alayhi salaatu wasalaam mu ne bi ci njëkk mooy bokkaale yàlla bi ci topp mooy njabar bi topp mooy rey bakkan ci lu dul dëgg bi ci topp mooy jëfandikoo riba bi ci topp mooy lekk alali jirim yi ku ay waajuram génn teel a dem ñu bàyyi la ak ñoom ñu amee alal ngay jëfandikoo alal ja loolu suñu borom nee na ci yonent bi nee na ci juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy alak képp koo xam ne yaa ciy laal ci la bokk ak daw ci bisub xare bu jëxët taxawee nga daw loolu ci la bokk ak tamit bootal as su jigéen baatub gannaaw mooy tuumaal ko tuuma joo xam ne tuumay njaalo ñaare jigéen bi nee na juróom la ci juróom-ñaar yi alke loolu itam li ci am li ñu ci ñoroon foofu ci xadis boobu rek wala liñ ci soxal bokk ci jataay bi mooy riba bi nga xam ne aussi fekkaat nañ ko fi comme ni ñu waxee ne daanaka fépp fu yonent bi di waxee ci yu yi nga xam ne yu da ciy teg ne ñaare ñi koy laal am na ay daan yu métti yi leen seen boroom di teg ñaare foo ko fekk rek ci xadis yu mag ci xadis yii nii dañ nga ci fekkaale riba ci boppam. boo demee itam ci boroom xam-xam yëpp ndax yooyu mooy yi nga xam ne ci fiqhul fiqhul islaam yi ci la ñuy sukkandiku di teg ay àtte moo xam muy alxuraan wax nañ léegi ne tere na ko tere gu tere gu leer moom riba ci sunna itam wax nañ mën ngaa lim lu ëpp juróom fukki xadis moom yoo xam ne yëpp day tere riba te itam yëpp di wér bu dee ci borom xam-xam yi tamit xamee sut ñaari borom xam-xam yu werante ci ndax riba daga naam daganut comme ni ma ko waxoon léegi ñëpp ñoo dëppoo ci ne lu lu araama jëfandikoo la xëy na li ñuy wuute mooy li ma waxoon léegi fan lay dugg fan lay lan la ñuy jëflante ban la ñuy jàpp ne jëflante bi riba dugg na ci. kon looy mel ne kon li am li li li doon solos waxtaan wi mooy tomb boobu kon yan jëflante yi nga xam ne ñooy jëflante yi nga xam ne riba da ciy dugg ak yim du dugg nan la ko borom xam-xam yi xamlee. Euh, riba moomu nag boroom xam-xam yi ñoom dañ koo xaaj dañ koy faral di xaaj ñaari xaaj. benn xaaj boo xam ne dañ ne mooy ribal bu yuwoon mooy riba bi nga xam ne ci jëflante jaay ak jënd ci lay dugg ak beneen boo xam ne riba duyun lañ koy wax mooy riba boo xam ne ci leblante ci lay dugg bu dee bu mooy biy dugg ci leblante moom euh, boo xam ne la leer na moom daanaka borom xam yi waxuñ ci wax ju bari ndax dafa leer bépp leblante boo xam ne la ngay delloo day ëpp la nga leboon loolu riba la ak nu mu a ak nuñ ko ak nu mën a doon nag moo xam leblante xaalis ak xaalis la moo xam leblante xaalis ak leneen lu dul xaalis la masalan nit ki dafa soxla woon 5000 sëñ bàcc dafa soxla 5000 ma ne ko kaay ma abal la 5000 ba feegu weer waaye ba may fay nag 5500 wala 6000 nga may fay loolu dafa araam da ni ki noonu itam dafa yor ceebam di ko jaay saakub ceeb bi mu koy jaay ñetti junni ma ñëw mu lebale ma ko ñetti junni mu ñu dem ba ci di biir mu ne ma comme ñetti junni la woon te at bi jot na dama la koy bàyyi ba beneen weer nga dolli ci junni nga dolli ci ñetti junni ya beneen junni muy ñeenti junni masala tuxal ab bor dolli dolli dolli lañ waroon a dolli lañ waroon a fay ñaar yooyu moo ci mën a am mooy boo xam ne bi ñuy sos bor bi ci la ci nekkee woon ak beneen boo xam ne bi bor bi sosoo ba noppi ci la ci duggaat bu ci ne ci ñaar yooyu daan na am waaye loolu leer la loo xam ne moom Euh, daanaka misaal yi misaal yi yomb na bi ci bi xëy na bi jafe nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ci la wax ju bëree bëri bind ci lu bëree bëri mooy riba bi nga xam ne ci jaay ak jënd ci lay faral di nekk riba bu yox boobu boobu nag lii gàttal gi mooy bépp bépp jënd moo xam ne dafa wàcc charte yi suñu borom teg wala yonent bi teg ko ci ne jaay ak jënd ca la war a dox loola la ca juddoo riba la loolu moom am nañu ko firee noonu sayyidatuna Aïcha firin woowu daanaka ci moom lañ koy gën di delloo ndax aaya yi tere riba ci suratul baqara mooy alladina yaakuluuna riba la yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu shaytaanu min al mas ba aaya ya jeex ba mu wàccee sayyidatuna Aïcha dafa wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam da caa da ci aaya ba ba ma ko waxee ba noppi dafa aaye jaay yiñ tere yi lu mel ne sàngara xam nga sàngara aaya ba koy aaya jëfandikoo gi la aaye woon jëfandikoo gi nga xam ne kon bàyyi nañ ko jëfandikoo waaye am na ñu ko daan jaay ndax mën nañ koo jaay ab yéefar bu ko soxla masalan waaye bi aaya bi ñëwee yonent bi da leen aaya waale jaay gi mooy kon dafa nekk jaay lu daganut a jaay jaay lu kon la cay la cay juddoo loola euh, mën nañ koo jàppe riba loola mooy gàttal gi donte ci biir nag boroom xam yi faram fàcce war nañ ko bu baax a baax waaye wax ji ku mel ne imaamu subuki di ab Shaafi'i ci téere bi mu wax al majmu sharh al muhaddab noonu la ko waxee dafa wane ne mépp njaay dana loolu wax jooju yaay Sayyidina Aïcha wax radiyallahu anha li muy tegtale mooy mépp njaay moo xam ne wàcc na charte jaay rek ci riba la dugg loolu tamit euh, Abu Bakr ibnul Arabi al Maliki loolu la wax ci téeréem lu euh, mu tuddee ahkaamul Qur'an moom itam noonu la ko noonu la ko xamlee donte nag bu ñu dugaatee ci biir moom borom xam-xam defaat nañ ci ay xaaj bi ñaari ci gën a fës mooy li ñuy wax ribal fadl ak ribal nasa mooy riba boo xam ne ndolleen la mooy li ma doon léegi rek mooy dama lay lebal kilo ceeb masalan fi yëgu weer nga fay ma kilo ceeb ak xaaj nga fay ma kilo ceeb ak xaaj ngir génn tuuti ci xaalis ndax léeg bu ñuy wax riba dañuy def ne ci xaalis rek lay dugg waaye jëpp jëflante yoo xam ne la ñuy jëflante riba da ciy dugg loolu riba da ciy valable c'est-à-dire suñu maa lebal kenn kilo ceeb tey même bu fekkee ne ceeb parfumé la mu war maa fay ceebu valet bi nga xam ne moom la ñuy bàyyee fii xam nga boo seetloo njëg yi mën a tolloo léeg kilo bi masalan bu doon jër téeméer bi ñuy bàyyee fii kilo bi di jar 400 xam naa ñu jégal ma ci prix yi may joxe ndax xaw ma kilo bi ceeb li muy jar moo tax euh, misaal la rek bu doon jar téeméer bee di jar 250 par exemple bi ñuy bàyyee fii xam nga boo seetloo day mel ne benn kilo ceeb bii dafa tolloog ñaari kilo ceeb yële waaye sañuloo dëgg ci loolu daal ne dama lay jox benn kilo ceeb ba may fay ñaari kilo ceeb bu vale bi nga may fay donte njëg ñoo tolloo loolu yonent bi da waaye loolu mooy loolu mooy riba moo ko ma jox la ñaat téeméer nga ñaat téeméer nga fay ma ñetti téeméer ñoo yam amul benn différence même bu fekkee ne boo xoolee njëg yi ñaari kilo ceeb yee day tolloog benn kilo ceeb bii nii loola mooy li ba nga xamante ne ribal fàdd la nga xam ne ci ci bépp ñaari marchandise wala ñaari jumtukaay ñaari bien yoo xam ne ñaari yëpp riba da ciy dugg ba noppi ñaari yooya yam mooy lu mel ne ceeb ceeb ak ceeb ñoo yam loolu la borom xam yi wax parfumé beeg non parfumé bi ñoo ci yam ñaari yu mel noonu sañoo cee jëflante ëpplante am ci waaye nag bokkuñ lu mel ne man ma yor kilo ceeb yow nga yor ñaar téeméer su boobaa sañ nañu ëppalante moom sañ na laa jox ñaari téeméer nga jox ma benn kilo ceeb masalan sañ nga ma jox ñetti téeméer nga jox ma benn kilo ceeb ñoo ci yam waaye liñ jut sañ ci loolu mooy ñàkk ñàkk teew mu teew dafa waroon mu teew mooy riban na saa bu euh, nag li ñuy xàmmee xeet yooyu nga xam ne sañuy si jëflante ci lu teew mu teew ak yi nga xam ne dafa war a doon teew mu teew ba noppi ñu yëpp jëflante ba tolloowaat loola borom xam yi dafa am ay natt ay tegtal yu teg sukkandiku ci wax yonente bi ngir génne yi nga xam ne ñooy mboolem marchandise yi nga xam ne tey mën nañoo wax ne yii nii kat riba da ciy dugg ak jëflante lu ci dagan ci jëflante lu ci daganut ci ëpp lu ñuy tudd nga xam ne jàpp nañ ne mooy bi gën a mat ci wàllu googu mooy xadis bi nga xam ne Ubaada ibnu Saamit moo ko nekk moom itam mooy xadis bu ñëw ci saxiixayn nga xam ne da caa tudd juróom ci njëkk mooy or wala urus ak yu xeetoog moom di pepp bi ci toppaat di euh, sair xam naa di soleeg ceeb am nañu koy jàpp naa di ko nuróoleeg basi sax basi wa euh, bi ci topp di tàndarma bi ci toppaat di xorom muy juróom-benn yoo xam ne yëpp yonent bi dafa wax ne bu ñu ci jëflante mislan bi mislin lay doon sawaan bi sawa yadam bi yad mooy bu xasee ba bokk xeet dañoo war a tolloo ëpplante sañatu ci am ba noppi tamit euh, teg gi teg ca la war a doon daan waaye nag bu xeet yi wuutee bu boobaa sañ ngeen cee jëfandikoo nu mu leen neexee waaye nag saa su nekk na nekk teggi teg ca ndax jaay la jaay moom teggi teg ca la xam xamut de soit nga jaay jënd wala nga leblante boo duggee ci leblante nga dugg ci beneen ci beneen ci beneen kii waaye kaay ma jaay la euh, ñu dëppoo ba ma fay la ba noppi nga dem di di ma jëlil li nga may jaay loolu bokkul ci jënd xanaa mu nekk foo xam ne yaa ko tegoon denc ko fa nga war koo jëli te su boobaa sax li borom xam yi gën a taamu mooy nga jëli ko ba ñëw ma fay la nga jox ma sama yëf bu ko defee juróom-benn yi li tax ñu tudd ko solo si rek mooy borom xam yi ci lañ sukkandiku ñoom ngir jàngat mboolem xeet yi nga xam ne yëpp riba da ciy dugg wala du ci dugg ndax yonent bi juróom-benn yi la tudd waaye borom xam-xam yëpp euh, asarax si ci téere bi ñu wax al mabsuut ab xanafi la moom dafa wax ne borom xam-xam euh, al mazahibul ñëpp liñ dëppoo mooy juróom-benn yii nii yonente bi jëf firi bëgg doon wax na juróom-benn yi kese kese kese mooy yi riba di dugg waaye da koo joxe comme ay comme parabole comme exemple boo xam ne man nañ caa sukkandiku ngir man a xam yan mooy yi riba di dugg ak yim di dugg loola moom al mazahibul arbaa muy imam mazahib mazhabul xanafi mazhabul maliki mazhabul shafii ak mazhabul xanbali lépp moom loolu lañ loolu lañ ci loolu lañ nekk bu ko defee imam ñoom bu dee xanafi yooyu axnaaf yi ñoom li jàpp mooy juróom-benn yooyu li muy firi ñaari njëkk yi li muy firi mooy lépp lu ñuy peser lépp loo xam ne dañ koy dañ koy bu ñu koy jëflante ndax dañoo wax ne or ak xaalis jamono jooja moom ñoo gënoon a siiw ci li ñuy peser loo xam ne da ngay teg poids natt même jëflante gi ñu ci daan jëflante ci xaalis sax fi ne booba euh, matière bi ñu daan def xaalis bi nga xam ne mooy pièces yi poids bi muy am ci or wala ci xaalis mooy joxe njëgam. exemple loolu rek lañ ko daan xamee bu ñu daan dinaar wala dirham benn bi xaalis benn bi or li ci am solo foofu mooy ñoom poids bi ñu ko mooñaaleel ci xaalis wala ci or nga xam ne boo ko téyee yow xaalis nga téye wala or nga téye loolu moo dem ba joxe suñu xaalis yi ñu am tey nga xam ne dañu am lu ñu koy tollooleel waaye ci cosaan ci jamono jooju bi doon wax loolu noonu la noonu la demee woon nga xam ne ñoom ñaar ñoo gënoon ràññeeku ci loo xam ne dañ koy dañ koy peser bu dee nag ñeneen ñeent yi ci des mooy ceeb ak euh, wala bokk euh, pepp ak baseeg tàndarma ak xorom ñoom axnaa fi dañoo wax ne mooy lu ñuy natt ndax yooyu dañ ko daan natt da naan benn bërigub ceeb masalan benn bërigub pepp wala nga ne benn euh, mbuusu xorom bu ko defee yooyu itam dañ ne lépp lu ñuy natt nga xam ne lépp marchandise moo xam ne mu ñuy natt la rek wala mépp mu ñuy peser kon ci axnaaf yi lu riba du dugg la boo ci jëflante danga war a bàyyi xel li nga xam ne moom lañ ci moom lañ ci gàll ci ci ay riba waaye bu dee bu dee ñun nag mazhab bi ñu nekk nga xam ne mooy mazhabul mazhabul maliki yi ñoom boo jàppee wuñ ko noonu ñoom li ñu jàpp mooy ñaari njëkk yi lépp loo xam ne sama euh, samaniya la loo xam ne instrument de paiement lañu koy wax lay firi mooy xaalis ak or ndax jamono jooja mooy lañ daan jëfandikoo ngir fay ak di jënd ak jaay nga xam ne tey bu doon tay jii kon da ngay wax ne chèque de banque yi ñu jëfandikoo ci la bokk nit sañu maa jox chèque boo xam ne 1000 francs la ma jox ko chèque boo xam ne 1200 la par exemple wala ma jox ko 1200 sax ndax ñoom ñoo bokk xeet bu boobaa chèque bi ak billet bi ak carte bancaire bi fi ne wuute ci loolu ñoom ñëpp maaliki yi dañoo wax ne ñaari njëkk yi li muy firi rek mooy lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir fay booy jënd wala ngay jaay instrument de paiement mooy mooy sama nijaat yi daan na ñeent yu mujj yi nag lépp lu ñuy lekk te man koo lépp lu ñuy dunde te man koo denc bu dee euh, Shafi'i yi ñoom ñoo wax ne man ngay denc du ci charte lépp lu lu ñuy lekk rek sax lay firi waaye Maliki ñoom dañ ne dafa am charte li ñuy lekk na doon lu ñuy dunde ci lu ñu baaxoo di dunde ba noppi doon lu ñu mën a denc al iqtaat wala xaar def naa noonu lañ koy waxee bu ko defee xaajal xaajale googu nag moo indiwaat ay yeneen xaajale yu yu yoo xam ne yu am solo la yu mën taxaw te def naa Ibnu Arafa ci xaasatu dusuuq moom la moom lay wax ne Euh, euh, ñaari njëkk yi moom euh, lu ñuy jë lu ñuy faye la mooy instrument de paiement dëgg la mooy xaalis ak xaalis or bi lépp lu ñuy jëfandikoo ci jamono ju mën a doon ngir fay booy jënd tey jii nii chèque dina ko doon comme ni ma wax carte de crédit dina ko doon virement bancaire dina ko doon ni ko xaalis bi ñuy yor espèce di doone dañu kon ñaari njëkk yi lépp loo xam ne bokk na ak ñoom ay la boobu rek léegi loolu dañu jàpp ne ku ci jëflante na xam ne yaa ngi jëflante ci produit boo xam ne riba da ciy dugg souvent nag na nga sàmmonteeg li ci suñu borom wax ne noonu ci war a sàmmonteeg ñu ne ña yi ci topp mooy li ñuy dundee ba loo xam ne sax épice la épice ak boisson yi yëpp ci lañ ko dugalaale épice yi mooy yi ñuy def ci li ñuy dundee masalan bu doon ceeb jimbo dañ cay def ak xorom jaag sukkër si ñuy def ci yeneen yi ñuy yeneen yi ñuy jëfandikoo ak soow yi ak yëpp ñoom ci xaasatu du suuq yi nga xam ne ci euh, ci ci yi ñuy saraa xalil ab xaasiya la ci mm, te Ibnu Arafa def ko moom noonu la ko noonu la ko xamlee xamle boobu sax am na bu ko gën a yaatuwaat boo xam ne moom la alxattaab ci mawaahibul jalil ba léegi nga xam ne moom yëpp benn bu nekk dafa wax ne sax daa am lu ko tax a jóg benn bu nekk ci juróom-benn yonent bi wax ci xadis bi ñaar njëkk yi mu ne ñoom ñoo jëm ci instrument de paiement yi waaye bi ci topp nga xam ne mooy blé mooy pepp tey nee na mooy lépp loo xam ne dañ koy dunde ci jamono ju normal en temps normal dañ koy dunde lu mel ne ceeb tey jii ci Sénégal bu nga xam ne bu dara xewut jàmm rek di xew ñi dañuy dañuy jënd ceeb di ko jëfandikoo kon bu boobaa lu mel noonu ci la bokk. bu dee basi bi nee na mooy loo xam bu ñu ko waxee ci xadis bi ne li muy firi ci xadis bi mooy lépp loo xam ne jamono bu xatee bu jamono naqaree dañ koy jëfandikoo bu doon Sénégal tey mën ngaa wax mboq ci xeer yooyu xaw a dugg jamono naqaree léegi ba amatuñ xëy na pepp muñ defaree cere mën nañu jël mboq di ko di ko def ci cere mu ne bu dee tàndarma tamit li muy firi foofu mooy lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir dessert boo añee ba nopp li ngay jëfandikoo lu mel ne raisin mën na caa dugg kon soow yi ñuy naan mën na caa dugg mu ne bu dee xorom xaris bi li mu firi mooy épices yi jimbo yee yëpp kon da ciy dugg nga xam ne jamono ju nekk rek lii nit ñi di jëfandikoo ngir eh, seeni ñam di mën a am cafka loola moo xam nag lu baax ci wér-gu-yaram ak lu ci baaxut loola moom leneen la su boobaa dañu jàpp ne loo xam ne la riba da ci da ci da ciy dugg moom itam kon maalikee ñoom noonu lañ ko gi gis defee nga xam ne topp la boo xam ne boo ko tànnee daanaka néew na lu ñuy jëflante ci jënd ak jaay moom te doo ci te doo ci te doo ci te doo ci fekk muy doon loo xam ne riba da ciy dugg Euh, bu boobaa nag yooyu nan lañ ciy xamee ñaar yoo xam ne ñu bokk xeet ba nga xam ne sañee su ci ëppalante parce que wax nañ ne parce que masalan ceeb bu parfumé ak bu bu dut parfumé euh, ñoo bokk xeet loolu natt bi ci Maliki yi teg borom xam mazahib yi bu ci ne bopp waaye xam naa ñun liñ ci gën a soxal ngir ngir gàttal mooy Maliki yi ñoom liñ ci wax ndax ñun ñëpp yaakaar naa ne ci mazhab wax ne mooy yëpp ñaar yoo xam ne ñoo bokk lu ñuy jariñ baa ñu niroo lu ñuy jariñ ñoo bokk lu ñuy jariñ bay benn baa ñu niroo lu ñuy jariñ loolu misaal mi ci gën a jege mooy ndawal yi masalan boo ko jëlee yàpp malika yi dañuy wax ne yàpp yëpp ñetti xeet dong la yàppi juru kër yi yàppi e, njanaaw yi mooy volaille yi ak yàppi e, géej yi bu defee yëpp yàppi juru kër wenn xeet la masalan kilob yàpp e, xar sañoo koo weccoog kilob yàpp nag ba noppi mu ëpp ñu ëpplante masalan ma jox la benn kilob yàpp xar nga jox ma benn kilob yàpp nag ak liibar xam nga boo xoolee njëg yi mën nañoo bañ a tolloo ci ci cosaan waaye bu ñu tolloowut yonent bi li mu santaane woon lu leer la mooy demal nga jaay sa yàpp xar boo noppee lam la jox ci xaalis nga dem jënd ci yàpp nag bi nga soxla waaye boo xasee bay wecceeku moom ñaar yi ñu bokk xeet su boobaa yow li nga joxe rek lañ lay delloo sañoo joxe laaj lu ëpp li ngay joxe donte fii tey boo ko seetloo dañuy wax ne rek mu nga xam ne ay qualité yooyu amu ci solo ci ci loolu moom xadis bi li mu jàpp yéen waa saasan li jàpp ci xadis bi kon wala maliki yi ko firee mooy yàpp moom bu dee yàpp juri yëpp bokk lu ñu jariñ ñoo bokk lu ñu jariñ baa ñu nuróo lu ñu jariñ bu defee bu dee yàpp njanaaw yi tamit ki yàpp ganaar ak boobu kanaar ak boobu naat ak boobu patt pitax muy naaw ak picc yépp boo ci dee weccante weccaxndiku sañoo cee ëpplante bu dee jën yi tamit noonu la jën ya booy beeg bu mag bee ci yam boo ci weccaxndiku bu ma la joxee kilo fii kilo nga may jox fee masalan lu dul na nag da ngaa xeeb kilo bee nga dem jaay yow sa kilo dem jënd ci la nga mën a am fee nga ci sañ-sañu lu la mën a may nga jënd ko ci loolu dafa am li koy li firi ne li firi na noonu lay demee tamit li firi na noonu la war a demee daa am boo xam ne yonent bi alayhi salaam daa am kum yabaloon di ko am lu mu koy liggéeyloo ca xaybar xaybar soriw soriwut ak Madina ba mu fa demee xaybar booba lañ miin ci seen tàndarma mooy day wow tàndarma ju wow lañ miinoon ci ñoom mu ñëw indil ko tàndarma ju tooy yonent bi tàndarma ji rafet ci moom mu ne ko waaw tàndarmay xaybar lépp yëpp nii la mel mu ne ko déedéet dañuy def bu ñu amee suñu tàndarma ji wow masalan ñu joxe ci ñaari kilo ñu jox ñu benn kilo tàndarma ji tooy dañu joxe fee saa'ay ni ñu jox ñu saa fii nii inna la naxudu saa min hada bi saa'ay ni yonent bi ne ko déedéet ne ko déedéet ne ko falaa tafal bi'il jamaa bi darahim tumma bta'i tumma bta'i bi darahima janiba mu ne ko tàndarma ju ju ñu wow ji ñun bu ñu ko amee damay dañuy joxe masalan ñaari kilo tàndarma jooju ñu jox ñu benn kilo ji mun na ko déet loolu bu ko defati loolu riba la da ngay jël nga ci xaalis boo noppee xaalis ba nga dem jënd ci tàndarma ju tooy ji nga soxla kon tàndarma ju tàndarma yëpp itam benn xeet la ju tooy ji ak ju wow ji ji 10 000 lay jar kilo bee di jar 20 000 kilo amu solo bu ñu xasee bay weccax ndi ko moom bu ma la joxee kilo yow kilo rek nga may jox bu fekkee nag bëgguñoo weccax ndi ko ñu dem commerce ji ma jaay sama yëf dem dem dem dem dem jëndi dem jëndi ci jeneen kon ñoom noonu lañ ko noonu lañ ko toppee mi émissaires yu gudd soow yi tamit noonu la mel soow yi masalan soow yëpp yu jóge ci xar yu jóge ci juri kër yi yëpp wenn wenn wenn xeet lañ moom xar ak boobu bëy ak boobu nag ñoo ci yem loolu kon mooy li nga xam ne euh, mooy dem ci euh, xam ni ñuy xàmmee yi bokk xeet ak yi ko bokkut ay misaal yu bari la yoo xam ne joxe nañ ko ci yii nii dañ ci doon taxaw rek suñ jamono ji daa mel ne tam baax na ñu waat ci yooyu ndax léeg ci marché bi ñu ñëpp dinañ ko gis weccee yu mel nii ñaari ëpplante da ci yomb lool te ëpplante ci moom riba la te riba moomu tamit wax nañ léegi ne yonent bi sallallahu alayhi dajaa wax ne ki koy jëfandikoo moom am na ay daan yu metti yuñ ko teg muy xam muy fii ci àdduna ba ci àllaaxira daan yooyu borom xam yi bi ñu ko dajalee yiñ ci biñ ci njëkk a génne nga xam dañoo jël xadis ci wax yëpp ci njëkk a génne ak aayaati alxuraan wax mooy rëbbum yàlla ci ki koy jëfandikoo maanaam jaam bi jëfandikoo loolu na ko wër na yàlla nga koy rëbb ndax yonent bi mooy wax ne alayhi salaatu wasalaam laana rasul laana laana rasulullahi aakila aakila riba comme ni ko xadis boobu waxee kon waxaat tamit feneen ne ñëpp wépp xeet woo xam ne tasaaroo na fa ne leen nañ xam ne mbëggalum yàlla ñoo ko daganal ci seen bopp kon loolu li muy firi mooy képp ku koy jëfandikoo na nga xam ne yow rëbbum yàlla mi ngi lay mi ngi lay topp bi ci dolli ko tam mooy bàkkaar la boo xam ne ak rëyaayam xamee sut xamee sut fu mu yam maanaam day mel ne du bàkkaar dañ daan wax naan ku def benn benn nga yam waaye bu dee njaalu moom wax nañ ci xadis boo xam ne Tirmizi wéral na ko ne yonente bi nee na dërëmub riba benn dërëmub riba nit lekk ko moo gën a bon ci yàlla eh, fanweer ak juróom benn njaalo njaalo woon fanweer ak juróom benn yoon loolu tamit kon day mel ne bàkkaar la boo xam ne rëy gi xamee sut fu bu dee itam euh, ba léegi ci yi nga xam ne ay danger la yu ci ne rafian yi ci ci ci al aziz charxul wajiz rafian yi di mi ngi ciy wax moom ab shafii da moom itam euh, ne aayab riba boo ko setantalee da ngay gis ne suñ boroom maa ngi cay wax lu mat juróomi juróomi euh, daan yoo xam ne mi ngi koy teg ki koy jëfandikoo bi ci njëkk mooy yamal am moom kooka du mën a dox maanaam tànk yi du mën a dox ndax diisaay alladina yaakuloon riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu cheytaanu min al mas deme ne koo xam ne seytaane da koo jàpp comme fii ci àdduna ko seytaane jàpp ni muy def nga xam ne day kadd kaddi ne na ñuy lekk riba yomal xiyaam euh, loolu tamit ab ko xaw a boo xam ne yonent bi da ne bi ñu ko rañaanalee daa dégg na ak kàddu dégg ay dëndu waaye gis fa na itam nit ñoo xam ne nit ñoo xam ne seen biir yi daa nekk ci seen kanam ci ngir diisaay mel ne ay néeg yoo xam ne ay ay jaan jiit ñoo ko dëkkee mu laaj jibril ne ko ñii ñumu mu ne ko ñii de mooy ñu naan jëfandikoo riba ci ci àdduna kon loolu day firiwaat wax jee rafin yi waxoon ne laa yaqumuna illa kama yaqumu alladi yataxabatahu cheytaanu min almas li muy firi mooy bu ñu ñëw àdduna seen tànk yi duñ ko àttan seen jëmm ji ndax seen biir bi diis gi muy diis ba nga xam ne suñ jógee rek dañuy daan waat loola benn la ci yi nga xam ne eh, ci ñi jëfandikoo riba suñ borom teg na ko leen ko ci ay daan ni ki noonu itam ñàkk barke ci li ngay yëngu ñàkk ñàkk cee barkeel yam xaqullahu riba wa yurbi sadaqat alal jum dugg suñu borom nee na dama koy dama koy rocciwaat damay rocci barkeb alal jooja <coughs> waxaat na feneen ne wa ma aataytum min riba li turbu fi amwali naasi fala yarbu inda allah ak yu bari yoo xam ne noonu la mel nee na bu ñett bu bu ci toppaat mooy itam ki koy jëfandikoo moom moo déclaré yàlla guerre xam nga moom ku xam ku ko ku xam ku xam yàlla doo ko def Euh, nee na loolu yàlla moo ko xal boppam jël xuraan bi mu wax ne fa fa lam tafaalu fa adanu bi xarbin min allahi wa rasulih dafa ci aaya ba ne bu bis bu li ngeen li ngeen doon jëfandikoo ci riba te xamu leen woon ne riba la moom euh, jéggal naa leen ko waaye nag na ngeen de bu waa bu ngeen di jëflantewaat ci liy ñëw na ngeen na ngeen na ngeen ci sàmmonteeg loolu te yam rek ci seen alal ji ngeen moom bu ngeen ko deful nag na ngeen xam ne déclaré ngeen ma guerre déclaré guerre sama mooy lu leen dal man lu leen dal rek man la loolu tam aay boobu koo seetna la da nga ko ciy gis ci yenn yi nga xam ne suñu borom da koy teg ci ay ci ay ci ay mbugal ci kiy jëfandikoo riba moom arrafin yi sax wax na ne ba ci nekk bu yëfër ndax suñu borom dafa wax ne wadaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin bu fekkee ne ngeen a da ngeen nekk jullit dëgg dëgg da ngeen di bàyyi riba xam ne ba mel ne kon kooku bàyyiwut moom nee na sa jullit sax mën naa mu sikk ndax suñu borom da ko cee tegoon comme ab condition bi ci tegewaat nee na mooy sax ci sawara ndax fa man jaahu mawidatu min rabbihi fantaha fa lahu ma salaf wa amruhu ila llahi wa man aada nag fa ulaayika asxaabu naari hum fiha xaalidun mooy képp koo xam ne nag wax nañ la fàttali la riba ba nga xam ko nga bàyyi ko nee na boobaa la la ji la la jiitu woon jéggale naa ko waaye nag lu dellu siwaat nag nga nga nga jëfandikoo waat ko ci moom su boobaa yow kenn mun laa tee jaar sawara te ba may dut sax nga sax fa bi bi bi ci mujj mooy itam sori sa borom sori yàlla sori yàlla mooy rek yegg ci boo ko ñaanalee du nangu nga ab jaam bu yeggee ci àdduna bu ñaanee yàlla yàlla du nangu loola mooy sori yàlla ndax Abu Hurayra dafa nettali ci ab xadis boo xam tamit ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne yonent bi ne yàlla dafa doon ku teey te itam du nangu lu may loo xam ne lu teey la du nangu lu dul lu baax digal tamit jullit ñi li mu digaloon yonent yi rek mooy dee leen lekk lu baax te jëf-jëf ju baax nga xam day mel ne lekk lu baax mooy lekk lu dagan ndax jëf ju baax ak lekk lu dagan moo am lekk lu baax mooy lekk lu dagan ci yàlla lekk lu baax mooy lekk lu dagan bu ko defee day mel ne boo du lekk lu dagan boo jëfee jëf ju baax sax du nangu nee na loolu la digaloon yonent yi daan ne bi mu ci noppee yonent bi mu noppee ci loolu dafa tudd góor goo xam ne doon tukki waa ju doon tukki ba noppi sonn lool coonoy tukki dal ko mu sonn fakk def lépp tàllal loxoom ci kaw asamaan bi ñaan naan yaa rabbu yaa rabbu fekk ne jamono bi muy def loolu wa mataamuhu xaraam wa mashrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa gudiya bil xaraam ne fa annaa yustajaabu laka daawa wala fa annaa yustajaabu li dalika daawa wala fa annaa yustajaabu li dalik yooyu yëpp ñëw na ci xadis bi mooy waa joo xam da doon tukki sonn fakk toroxlu lool tàllal ay loxoom di ñaan suñ boroom yow sama boroom yow sama boroom fekk ne li muy lekk dafa araam li muy naan dafa araam li muy sol dafa araam suñ boroom dane kooku fan la ñuy nangoo ak ñaanam kon day mel ne lii leer tegtal la bu leer ci ne charte ñaan gu nangu da bokk di lekk lu dagan ak di ko sol ak di ko naan ndax yii mu wax nii ñaare mooy dañ ko charte la ci nangu fi ne tukki ab tukkikat dañoo wax ne ñaanam daa bokk ci ñaan yu nangu loolu Abu Hurayra moo ko nekk ci ab xadis ne salaasun salaasu daawaat mustajab la shakka fihinna ñetti ñaan a ngi nii yoo xam ne dañ leen di nangu te sikk amu ci mooy daawatul mazlum koo xam ne dañ koo tooñ mu ñaanal ki ko tooñ ñaan googu suñu borom da koy nangu ak daawatul musaafir kii tukki ndax kii tukki tumuraanke da koy yomb te ab jaam ñaari saa bu nekkee ci xat-xat barab barabi xat-xat barabi nangu ñaan la mooy barabi tawat barabi mbas yi nii fi ne barabi nangu ñaan la jamonoy nangu ñaan la ak wéyjur wuy ñaanal doomam ñaan googu itam ñaan gi nangu la ñetti ñaan yooyu Abu Hurayra dafa ne bi nee na dañuy nangu kii moo tax yonent bi joxe misaalum waa ji doon tukki ndax kooku normalement ñaanam dañ ko war a nangu ba noppi teg ci ne mu doon ko toroxlu mooy ku fakk yére yi tilim loolu daa bokk ci itam toroxlu googu daa bokk ci tax ñu nangu ñaan xam nga salaatul istisqa sax mooy buñ bu taw ñu julli julli ngir ñaan yàlla mu taw dañ caa sopp ñi ñëw ci julli gi ñu sol yére yu ñagas yére yoo xam ne yére yu doya di lay doon wan yàlla ne ko ñun amuñu dara ñun dañoo dañoo rafle kii yonent bi dañ noonu la mel tamit nekk ci tukki bokk na tamit ci sart ñaan gu nangu mooy teggin yi ñaan mooy tàllal sa loxo asamaan jublu penku waa ji tamit loolu la def waaye yonent bi nee na bi mu waxee ba yàggal suñu borom dane kan moo koy wuyu li tax kenn du ko wuyu mooy parce que li muy lekk dafa dafa daganut li muy jëfandikoo riba la ya sahlu bnu sahlu bnu abdullah waxaat benn xadis ne euh, képp koo xam ne yaa ngi lekk lekk nga lu dagan lu mat ñeent fukki fan yaa ngi lekk lu dagan kese ngay lekk boo ñaanee ñu nangu ko loolu lépp day wax ne ne rek ñaan buñ nangu kon lekk lu dagan sart la ci kon sori yàlla euh, moom jëfandikoo riba day bokk ci li koy waral suñ jamono ji dem boo ko seetloo da nga gis ne ñaan yi fi ne daa mel ne da yàlla xam doy na léeg-léeg nit ñi dañ koy jàmbat ba tàyyi ñaan yi ñaan yi ñaan yi waaye ku seetlu tamit liñ njëkkoon wax ci njëlbeen nga da nga nga xam ne am na am na am na illa am na bu baax a baax sabab loolu noonu kon nag jëfandikoo léegi nag mu des nag kon tomb bu mujj bi nga xam ne ci dañuy daje incha allah mooy yan jëf yan xeeti jëf jëflante ci alal ñoo yi yiñ seetlu ci jamono ju mujj ji te ñu yoo xam ne boo jàngat boo jàngatee riba ci alxuraan ci sunna ci waxe borom xam ne da gis ne jëflante yooyu moom yi riba di dugg la te yaatu ci lool. yooyu nag boo ko bëggee xëy na ngir mu gën a leer da ngay delluwaat rek ci charte yi nga xam ne jaay ak jënd te war a tege na waxoon nañ ne jaay ak jënd bu tegewut ci charte ya rek léegi daganatut te la ca la ca sosoo riba boo seetloo waxoon nañu bari yoo xam ne xam naa du jar jaaraat na waxtu wi xat na yoo xam ne daganut euh, mu am ci jënd ak jaay bokkoon na ci masalan euh, li ñuy jënd ak jaay benn ci ñaar yi xamuñ lu mu maanaam prix bi wala li ñuy jënd xamuñ ko bokkoon na ci tamit euh, mu am ci lu leerut maanaam loo xam ne dañ ko nëbbu ci njaay meek njënd mi bokk na ci tam li ñuy jaay doon lu am jamono bi ñu koy jaay loolu nag sette nañ ci rek njaay mi mel ne salaam ak istisna loolu xëy na duñ ci taxaw na waxtu wi bokkoon na ci tamit li ñuy jaay ki koy jaay moom ko bokkoon na ci mu doon lu mën a joxe na doon lu dagan itam te na doon lu am njariñ jaay lu am njariñ aw këyit ma fekk fii aw këyit ne suñu moodu jaay naa la ko ñaar téeméer damaa bëgg lekk ñaar téeméer suñu moodu waaye jaayu ko dara ndax këyit bi jëru ñaar téeméer amul njariñ itam bu dee nag loo xam ne baaxoo nañ ko jariñoo boobaa mën naa mën naa doon njariñ soobaa nag loolu boo ko bu loolu leeree mooy bu ci njëkk mooy li ñuy jëndanteeg li ñuy jaayante nañ ko xam nañ xam prix bi lan la nañ xam li ñu jaay lan la yi xew léegi nit la defaral dara baa mu lay jaay dara nga ne ko ñaata la mu ne ah loo ma jox rek baax na masala loolu fi ne jëflante bu ay buñ la ndax danga bëgg nax nit ki lekk alalam ndax ñaare boo ko waxee faaw mu jox la lu ëpp dina la rus a jox lu tuuti te xamut li nga ko defal ñaata la la war a jox moo xam da la defal benn service moo xam da lay jaay dara moo xam lu mën a doon bu dee da ngeen di jaayanteeg jaayante da nga koy wax nangam lay jar li may defal tamit nangam la nangam laa la koy defarale bu dee da nga koy may nag nga may ko ko bu noppee lu mu la mën a may moom itam mu may la ko waaye dama lay defaral waaw da nga may defaral ñaata laa lay jox ah loo joxe rek yow kay du ma a facturer dara loo joxe rek baax na te da ngaa yéene mu fay la kon li nga koy defal kon njaay moo xam ne prix ba xamuñ ko loola lu ca waaj a am riba dugg na ci ndax prix ba prix ba xamuñ ko te Seydina sa waxoon na ni riba mooy mépp njaay moo xam ne daganut ci sariya te njaay moo xam ne xamuñ prix bi daganut ci sariya loolu itam jëflante la boo xam ne bu xam la ci jamono ji ñu toll nii. beneen bi nga xam ne mën nañu ko joxe exemple itam mooy kii jaay na teggi teg ca na ci am xadis ba loolu lay waxoon yadan bi yadin nga ñëw ci marché bi di jënd ab téléphone kenn la waaw man am naa téléphone téléphone boo bëgg nga wax ko mu ne maa la koy dama la koy jaay nga jox ko mu ne ko loolu daganut riba tamit. bu dee moom am na téléphone ñaar moo am sañ na nag ne la indi ma wutal la téléphone ci njëg nangam sañ na ko loolu moom sañ na ko boobaa yow danga nga koo wutloo téléphone ci génn njëg bu demee bu ko amee lu ko gën a yées moom moom moom la ca tepp sañ ngeen ko waxante loolu waaye dama lay jaay téléphone nga xam ne ne am naa bi wala am naa li nga bëgg a jënd soo ko ko soo ko joxee sa alal itam moom euh, jëflante ngeen jëflante boo xam ne euh, daganut ci lislaam bu boobaa nag dugg na ci ca ka nga xam ne moom moo moo yóbbu la moo moo moo moo moo ca def la ca ci cas bi itam mooy ki wax ne moom mooy jaay te amut lu te amut li muy jaay masalan ni ki noonu tamit euh, boo xasee ba tudd prix xam nga njaay yi tamit ñeenti xaaj ñoo ci am mooy bay bay bi ñuy wax bay'ul musaawa nga xam ne moom lañ xam ñun ñëpp mooy prix boo fay prix bu dañuy waxtaan rek ba juboo ci prix waaye dafa am yeneen ñetti njaay nag mooy dama laa wax ne la lii ma lay jaay lii laa ko jëndee lii laa koy jaay man sama bénéfice bi ma ci dàq masalan nangam la téléphone bii dama ko jënd 30 mille laa ko jëndee bénéfice bi ma ci dàq nangam la wala utuma ci bénéfice loo ma joxaat 30 mille ma jox la ko wala sax dama ciy perte ndax xam naa ne amut njariñ soo ma joxee 25 mille ma jox la ko bu ñu xasee ba tudd prix prix boobu ñu tudd moo ci moo ci moo ci moo mooy prix mooy prix ba normalement te jii bu dee ci dañoo wax ne dama ci 30 mille laa ko jëndee woon ba ma joxee 40 mille ma jaay la mooy sama bénéfice bu dee waaja jëndewu ko ko woon 5 te bu ñu ko xamee njaay ma dañ ko war a firi baa mu dellowaat 5000 ba ndax moom li mu wax mooy bénéfice kon ne loolu nga jëndee ni ki noonu tamit contraire bi su fekkoon ne dafa wax ne man kat utuma ci bénéfice 30 000 laa ko jëndee li mu wax rek lañ ko war a jox ni ki noonu tam bu dee damaa wax ne damay perte ci njaay mi lii 30 000 laa ko jëndoon waaye mën naa cay sax bàyyi 5000 sama joxe 25 000 su wéree ne 20 000 la jënd woon dafa war a delluwaat 5 000 5 000 boobu riba la fi ne maanaam lépp njaay moo xam ne dañoo déclaré prix bi ñu jëndee déclaré li ñu soxla ci bénéfice sañu ñoo génn sart yooyu léegi moo xam bayoon muraabaxa la moo xam tawliya la moo xam wadiya la yooyu yëpp noonu la war a noonu la war a doxee ko defee bi ci do bi ci bi ci dolliwaat mooy ja prix boo xam ne dam intérêt comme bu am ci banque yi nii xam naa boobu dañ ci dañ ci dañ koy bàyyi daaka ñëpp xam nañ ne riba la li am solo rek mooy banque yi ñoo war a wut ay solution islamique euh, jéem a fexe ba mën a jëfandikoo jëfa jaar ci commerce bi suñu borom santaane mën a def seen mën a def seen activité bancaire te duñ dugg ci lu ci lu araam. Mm. yàlla dafa wax ne ahallallaahu al-bay'a wa harrama al-riba. <laughs> incha allah. <laughs> waaw kay kon yaakaar naa yaakaar naa mënees naa mënees naa sax yamale foofu exemple yi xam naa exemple bi ma ci bi ma ci doon bëgg waxaat itam mooy ngeen may ma ko rek mooy xeeti carte yi xewaat tamit xam nga kart suñu borom da ko araamal bu baax a baax ci alxuraan te riba la itam ginnaaw bi mu araamee araam boppam ba noppi ndax lekk alal nit ñi ci lu tey seen tey bakkan la moom itam suñu borom daanaka fu bari sax mook sàngara lay lay lay boole tudd ci alxuraan carte yooyu la ñu ci ñëwaat mooy dafa xewaat xew gu yees tàq goo xam ne léegi dañ la ko defal sa téléphone yow da nga sa téléphone rek boo xoolee téléphone yi moom daanaka léegi fukk yoo jël juróom-ñett yi dañ te fekk moom benn boo xam ne carte kaay la football baa ngi daw di way gaañe ngay wax sa xaalis a doon mooy 1xbet am na yu noonu am na yu tudd pari nu nekk nga jël orange money 1000 francs ñu ne la boo boo tegee bu diw moom a gagné am nga 10 000 wala am nga 5000 parfois ay léeg nga gis ci ko ci gagné ay million ci dëkk bi yaatu na fi lool ak ci dëkk yëpp ci Sénégal waaye Touba gi moom yaatu na fi ba jéggi dayoo daa noppale da nga toog sa néeg rek yor sa téléphone loo yor def ci Orange Money bi carte di carte guddeeg bëccëg loolu loolu ci xeetu carte bu bees la boo xam ne araam gi moom foo ko takk wees na ko moom carte yëpp ñoo yam rek ñun naan def ci loterie rek lu mën a doon bi ci bi may mujj nag te tëjee ko rek mooy itam action sociale yi nga xam ne soxna yi dañ koy faral di def te xeet naa ndawtal lay doon lu baax la loo xam ne lu lu mat a encouragé la waaye nag ñu génn ci lënt gu ci nekk te mooy buñ koy joxee te jublu ci moom itam ab tekk te jublu ci boog leble laa bëgg a wax ndax ñoom niñ koy joxee daa mel ne wut naag ni ko góor yàlla yi defee de da ngay joxe nit ki rek li nga koy jàppalee ci xewam mu def ci poosam fàtte na ko boo amee xewee itam lu mu lay jàppalee mu ko waaye soxna ma koy jox dama koy jox lu ko ëpp moom bu xewlee 1500 laa ko war a jox masalan loola mooy leblante ñu tegal la ci rek amul différence amul différence ndax imam Malik ñoom ci mazhab boobu li ñu wax mooy moo xam lañ cay teg dañ ko caa charte wala daa mujj nekk aada duñ dëppoo même buñ ko waxantewul te jax na yi def naa xaw nañoo dëppoo ci seen loolu moom mooy ku la jox ñaar téeméer yow bu xewlee ñett téeméer nga koy jox ku la jox ñett téeméer ñeent téeméer ba jeex loolu itam xëy na mat naa dindi loola ci lënt te mbir ma nag lu baax la lu ma ta encouragé ndax man di mu leen jàppale ci bare bari waaye dindi lënt googu ci nekk yaakaar dina ci baax ngir ñoŋal jëflante booba ak jëflante yi ñu wax yëpp tamit joxe ci ay misaal ñu jëm leen ñoŋal ci dindi li ci nekk ci riba ndax xëy na loola mën naa doon sabab ci jàngoro yu bari yi mën naa doon sabab itam ci sori gi ñuy sori yàlla di ko ñaan duñu nangul ak yu bare bari yoo xam ne waxoon nañ ko ci njëlbeen gi mel na ne waxtu wi xat na ñu tënk rek suñu bàcc bu ko defee lu ciy dënk ngeen jubbanti ko baax a baax ndax Euh, lii moom seen i gëstu yéen ci la gën a jëm ah dañoo sob rek di ci wax waaye eh, euh, ñu ngi jégg lu baax a baax itam lépp loo xam ne dëng na ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf te kilifa yi bàyyi seen i soxla di def ak seen i ndax parce kon ñoom ñu bokk ci bàkkaar boobu ñoom kilifa yi bàyyi ñu def. waaw waaw xam nga loolu soxna si moom niñ ko toggee jëf lañ ko toggee niñ toggee jëf borom këram lañ ko toggee jëf ah moom dafa war a jéem a xam li yëf suñu borom di aay di ko bàyyi itam donte nag borom kër bu ne yaa war a dimbali sa soxna ci mu jub waaye loolu da nga ko ci dimbali rek waaye nag yow kenn joxula bi yar ne la euh, faaw nag soxna si da nga koy da nga koy da nga koy innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha man nes ne la fàttali ñu xam ne lii sox borom kër yu bari itam nag ñu ngi koy bàyyiloo xel seen i soxna ak di leen ko aaye sax di aaye ndaw tali bu baax a baax soxna yi ñoo xaw léeg-léeg itam am ko aayee sax bu am solo rek mooy du aaye jëf ji sax mais ñu fexe leen koo ñoŋalal mooy li am solo mooy fexe leen wax ne leen kët lii nañ ko jàppee dimbalante bu njërut bind bu ñu ko joxee fàtte ko li am solo mooy sa mbokk mu leen nga jàppale ko moom sunna la lu am solo la ñu xam ne rek ni ko góor ñi di defee noonu ñoom lañ mën nañ ko defee noonu ku ci xewle waa koñ ba sax moom sax mën na ko bañ a yëg jigéen ña dajaloo waxtaan diw mii kër nañ ko jàppale ci xewam mi ku nekk joxe loo man mën naa gën a am solo ci ñoom bu noppee dajale ko yët ko ko ba góor ñi dañ koy def lu bare bari ñu xewle ña bokk ca bokk ga dajaloo foo xam ne ka xewle sax yëgu ko waxtaan ci seen biir nañ ko jéem a jàppale ku nekk joxe loo man ñu jàppale ko loolu nag mën nañ ko defee noonu buñ ko defee mu jub te doon te doon te doon lépp di tiyaaba ndax loolu dimbalante la at taawunu alal birri wa taqwa lay nekk su boobaa dugg itam ci at ci baabu taysiir euh, loo xam ne ngeen di bari bari ñëw na ci boobaa lu am solo lay doon. waaw jërëjëf kon naa ngi jox suñu bàcc rek mu ngi liggéey ay kàddoom ci fukki minute ndax laaj yi ñëw daa mel daa xaw a sàggal tuuti moo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi teew ci jàkk ji yëpp ñu ngi leen di ziar ka nuyu suñu kilifa yi ak suñu wayjur yi di jiital ci cant gi Sëriñ Chouaïbou bi doon def thème bi tubaarkàlla am na solo lool jëm ci e, li dagan ak li araam ci jëflante alal yi xaalis muy riba riba nag indi na ummahaat yi muy cosaan yu yàgg yi ko xame ñu daan ko tuddee ribal nasiya ak ribal fadl dem ci banque bi mu lebal la téeméeri junni ne la booy fay téeméeri junni ak ñaar fukk ngay fay lu ko waral mooy yéex a fay ga mooy muqaabil bi nga xam ne mooy tax nga dolli ca dara riba bu ñëpp dëppoo ci araamam la ñaareel bu mooy ribal fadl riba bi nga xam ne dañuy weccoo ñaar yoo xam ne ñoo bokk aw xeet dugub ak dugub ak ceeb ak ceeb ëpplante bu ca amee riba la doonte Abdullah ibnu Abbas lañ gis ci saxaaba yi ku ne woon du riba waaye dellu na ca ginnaaw ca mu jëm ndax daf ne jëflante la boo xam ne ñu koy def bëriwul. léegi nag bi ñu ci gën a <coughs> yeneen borom xam-xam yi ne jëflante bépp bu mën a doon boo xam ne sharia da ko araamal loola riba la nga xam ne loolu moo gën a tënk e am beneen bu ñu gën a sonal boo xam ne daa mu wute mooy e, li ñuy wax lekk alal ci neen nit ki nga fexe ba lekk alalam. cig neen borom bi tere ko bu leen lekkante alal ci seen biir ci ak neen kooku nag moo nekk ci sunu biir di lëmbee bari lool mu mel ne riba fi mu toll daanaka daa daa ëpp fi mu toll li dul riba ni mu ko waxee ne yéen sam nee na woon mujjug jamono dana dem ba ku lekku riba nooyu ca pënd ba soo jëflantewu ci commerce riba moo lay fekk sa biir kër nga di ko lekk te doo ko sañ a la boroom xam-xam boo waxoon ne réewum lay cité ku ci dund ba dee faw nga dund riba faw nga lekk riba mënoo am jaamu yàlla ak cent ca sunu borom ndax institution yi liñ koy tëggee mooy war a lekk riba te doo ko sañ a bañ kon mu mel ne riba fi mu ay façon yu bare bare bare bare bari bokk na ca PMI wax na ko léegi. bu njëkk ba mu 18 ans duñ nangu nga dem ca casque yi di jënd léegi nag ci téléphone lañ la ko defal sa doom jël sa téléphone nekk ci sa ginnaaw di PMI di carte bu gañee ñu defal ko ko ci Orange Money bi mu dem retiré ko ca boutique yee te yow baay bi doo ci yëg dara kon léegi bërëbu kartukaay yooyu daa mel ne dafa dafa daanu léegi téléphone gone yee ko daaneel te loo am loo am man nga ko ñaar fukk sax man na ko mooy li ñuy wax xbet ak pari foot ak yu mel noonu ngay dégg nga xam ne ci match yi lañ koy jaare kon léegi lekk riba riba ak kart moom léegi mi ngi ci biir kër yi mi ngi ci poche yi mi ngi ci fépp loolu nag mondialisation maçonnique li ñuy wax franc-maçon moo ko gën a tasaari ci àdduna kon eh, riba ni mu ko waxee mu bari ay façon lool yoo xam ne léegi kenn mënu ko lim ngir da naan léegi loo jeex rek boo demee fekk ca riba lu mu mën a doon rek boo ko boo ko jeexee boo demee fekk ca riba ndax mooy bépp jëflante boo xam ne sharia àndu ca lislaam euh, dëgganalu ko lépp ci banque yi nga xam ne moonu gën a sonal fi mu toll banque yi euh, conventionnel yi nga xam ne ay nit a toog xalaat ko muy banque yahudi yi nga ne moo ci réew mi bu dul banque islaam bii muy liggéeye moom banque yooyu yépp leb ca jëflante riba mooy riba nasiib bi ñu doon wax muy lu araama araam nga xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ki ko sañ mooy ki loru ci lekk nga xam ne bu lekku dee waaye leb ngir tabax kër daa araam leb ngir charger magasin daa araam leb ngir tabax ngir jënd oto dafa xaram yooyu yépp darura tuqaddaru bi qadriha darura dañ koy natt ci kem tolluwaay ba nam toll àtte ko mu jeex waaye du caaginte ni te kii def loolu day dem ci boroom xam-xam laaj ko ne ko man kat dama àgg ci loru ndax sañ damaa leb banque su ko defee mu door ko eh, xool ne lam wax wér na lu wér a wér la mu door ko ko sañ a eh, digal bu dul loolu dëggal kon ba tey bokk na ci yi nga xam ne ci riba lay dugg eh, ci li borom xam-xam yi wax koo xam ne li ëpp ci alalam daa xaram ci jëflante bu xaraam la ko fàggoo ba am ko lu mel ne dafay musique mbaa muy jaay sàngara mbaa muy jaay drogue mbaa yu mel noonu ba alalam la ci ëpp daa kooku jëflanteeg moom riba la dafa xaram loolu nag buñ ko waxee lu doy doy waar la loolu mënu indil banque bii tey banque yahut bii société riba li ëpp ci action li muy jëfandikoo riba la moo tax bu boobaa jëflanteeg moom yow doo ko sañ wut fa compte compte épargne denc fa sa alal di ñu ciy liggéey eh, di la fa tegal intérêt dafa xaram ndax yaa ngi jàppale société riba bi ci eh, wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan day leen jëflante ci mbaax ak ku yàlla waaye bu leen jëflante ci safar kon loolu bànqaas dafay juddoo bu araamal eh, banque islam yëpp banque yahudi yëpp jëflanteek ñoom dañ am fa compte laa la wax dafa xaram day mujj liggéey fa dafa xaram dafa am benn borom xam-xam boo xam ne Eh, Mouhamad Rachid lañ koy wax ca manaar bu iftaa woon iftaa bu yéeme dafa ne woon réewi lislaam yi nga xam ay jullit dafa ëpp te tubaab yi colonisé woon leen ba génn bàyyee leen ak seen bopp xaraam na ci ñoom ñu taxawal banque riba yi xaraam na ci ñoom ñu jëflanteek ñoom di fa dugal seen alal ndax société la boo xam ne la ëpp ca alal ja dafa xaraam kon ab jullit warut a jëflanteeg ñoom su dee société yi ña ko moom ay jullit lañu léegi ñu ne ko waaw léegi bàkkaar bi kon ci kan lañ koy teg mu ne député yi ca réew ma ndax député yi ñoo toog ensemble war a kaas loolu saa yu ñu gisee banque islam am ci réew mi rek ñoo war a taxaw ne banque yahut moom dee sutu jëflanteeg moom am na réewi l'islam yi ko def Soudan moom la def fi mu toll banque yahut banque conventionnelle bi amu fa banque islam képp la ñuy jëfandikoo ndax suñ ko xasee gis arab na ci jullit bi muy jëlati alalam di ko denc ci banque yahut yi amatu ci wenn lay ndax day jëflanteeg société bi nga xam ne riba lay jëfandikoo kon suñu ko dimbali ci benn côté denc fa alalam da koy dimbali kon loola bokk na ci yi nga xam ne eh, lu bon a bon la riba nee naa la daa gën a yaatu ba ci suñ moroomi jàngkat yeeg ñëpp a koy def léegi am na société bu bees bu génn bu ñuy wax bit bitcoin bitcoin da ngay dugal sa xaalis léegi douze mille ngay dugal léegi gagné vingt mille wala vingt cinq mille ñu ma xam man ñu ngi koy def nga xam ne mën ngaa dugal tey gagné suba léegi nag liñ koy layeele mooy eh, daa dañuy jaay pétrole dañuy jaay pétrole. léegi nag da ngay mel ni actionnaire nga ci boo joxee dara léegi ñu jël alal jot ñoom jënd ci pétrole jaay ko am ci bénéfice delloo la ko léegi yooyu yooyu tappalee nga xam ne mi ngi ci suñ biir bari noonu riba bi riba bu njëkk bañ doon wax fi mu toll bi sëñ ci wax umaatu riba léegi dañ koo tëb léegi jëflante ci neen nga xam ne loolu borom xam-xam yëpp iftaa nañ ne daa xaram amu ci kenn ko ci wuute ñaar dajewuñ ci ñaar dajewuñ ci daa daa xaram jëflante yooyu moo fees dell ci sunu biir fi mu toll ba ci banque bi da ngay gis commerçant bu toog génne alalam di eh, ci banque yahud bi di joxe di joxe kii dañ ko war a leeral ne ko banque islam bu amee cim réew tey jëf jëfandikoo norme islam yi ko islam wax ab jullit sañu tuta denc alalam ci banque yahud yi ma dafa mel ne sëñ bi ngi may jox naan ma trois minutes waaye man li ma yor ci lu ma war a wax yaakaar naa moo ëpp thème bi sëñ bi doon wax <laughs> moo ëpp ten bi sëñ bi doon wax eh, kon loolu dañ ko xam bu baax a baax dañ leen ko war a leeral ne leen am na fi léegi ndax dafa am borom xam-xam yu ne déedéet d'accord ci dafa am ñaari qaayida yu am ci sharia almaalul muharram bi daatihi fa huwa xaraamun ala alkaasibi wa ala ko ci wolof alal joo xam ne jëmmi alal ji aram lu mel ne mbaam xoox ak sàngara kooku ki ko liggéey moo moomu ko dafa xaraam ci moom xaraam na mu may ma ko bu ma ko mayee sañu ma koo jël am ñu ne waaye nag alal ji nga xam ne borom da koo fàggu fàggu ko aram daloon jaay drogue wala sàngara wala leen ba am ko araam na ci moom waaye araamut ci keneen ku muy jëfal jëflantee man sañ na maa jëflanteeg moom alalam ci moom la araam waaye araamut ci man loolu daa am boroom xam-xam yu ko wax am ci taxawaay bu dëgër ñoom ñu jëlee ko ci xadiisu Barira Barira soxna la soo xam ne ab jaam la woon daa nekkoon ak Aïcha bi ñu koy goreel nag Aïcha dafa joxe alalam ngir mu gore léegi nag mu dem ñu sarax ko ndawal mu dikk indil ko Aïcha Aïcha defar ca supp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci néeg bi gis supp bi bëgg caa dugal loxoom Aysa ne ko déet lii kat bariira lañ ko sarax xam nga yéen sam du lekk sarax dafa xaram ci moom mu ne waaw bariira lañ ko sarax ci bariira lañ ko sarax waaye man bariira dama cee jox addiye nga xam ne moom sañ naa lekk addiye moom yonent bi ci lañ ne alal kon nit ki ko liggéey mën naa araam ci moom waaye bu dikkee may la ko mbaa nga jëflant maa mu fay la ci bor mbaa nga moom yow mi koy lekk dagat na ci yow yow mu mujj mi nga xam ne sa yoon dem ci ñee ñu ne déedéet jëflanteeg moom waaye daggan na ci ab yahud wala ab nasaraan ku dutub julit alalam même bu araamee dagan na ngay jëflanteeg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan def ba ci mbubbu koŋ mi mujj a mi mi mi mujj a tayle ab yahud nga xam ne mi ngeeg moom mbubbum koŋ moomee ab yahuda ko moomoon kon yonent bi da daan jëflanteeg yahud yeeg nasaraan yi waaye kii ab julit moom daa xaraam ci moom ndax dañ koo takkilif furoo ay bànqaas yi kon muy yu bare bare li mu wax ci ndawtal yi man dama dama damaa jàpp ne daa xaraam ndax koo ci gis mi ngi kaye boo xam ne bu sëy si fii tey Daaru Xudus dëkk Kolda yàlla dogal ñu fase ko mu dellu fa kaye boobu du jafay dara wala bu faatoon dañ koy mujj bàyyi te bor moom xam nga saa yoo demee ba di ko bind rek xamale bor boobu moom te bor ba intérêt da caa kullu salaf kullu salafin jarra na fan fa wa riba bépp bor boo xam ne dafa amal intérêt ki koy leble da riba bépp bor bu mën a doon moo tax E bunt yu bare bare bari yoo xam ne boo ko tijjee ci suñu jëf jëflante ñun ak li ñuy dund nga xam ne mi ngi ci suñu kanam te fees dell ak riba moom kenn xamut nu mu toll kenn xamut nu waaye kon ko waxtu yi moom dañu ko limité aywa su ko defee man yoroon naa laaj yoo xam ne daal jëm ci banque bi sëñ bi yoro laaj yu bare bari yoo xam ne laaj <laughs> ca ca banque ba lañ ko war a laaj riba wax na li ko tax a mooy wépp suuxu ndawal woo xam ne daa duufe ci riba daa duufe woowu sawaraa ca gën a yey kullu laxmin e la yonent bi waxoon wépp suuxu ndaw ndawal woo xam ne nabata daa saxee ci lekk riba fannaaru awlaa bi sawaraa ci gën a yey kon wax na ne riba lor yi mën a indil jullit ñi lor yi mën a indil e monde l'islam bi jafe-jafe yi ñu nekk yépp moonu ko teg ndax nun banque conventionnelle yi ñu jëfandikoo même impôt impôt sax dafa xaram ab am réewum jullit kenn duñu laaj impôt te impôt et domaine impôt bii ñu yor nun suñu réew mi li ñuy def lépp ci lañ koy defee xam nga ne dëkk bu ñu fay gas forage fi di ko di faaw ñu nangu te ci impôt yi lañ koy defee ab réewum lislaam kenn du leen laaj impôt waxoon naa ne Abdourahman ibnu Qasim am na jàkka ju taqaloo woon ak moom jàkk ja nag daawu ca nangoo julli bañ koo laajee laaj ñu ko sax ñeen ñi dañ ne ki tabax jàkk ji ci impôt yi impôt la doon liggéey impôt yooyu la doon dajale ci la tabax jàkk ji moo tax nanguwu ca woon a julli kon yooyu yëpp di ay sew-sew même assurance bi ñu def fi mu toll wax naa ko fi assurance dafa xaram même assurance ci banque bokk na ci laaj yi ma ko waroon laaj fi mu toll ndax dafay am beneen société bu dikk boo xam ne day assuré xaalis bi ñu fi denc compte yi ko ngir bu ci jiyee amee mu man koo fay loolu danger ba lay assuré danger boobu buy assuré nag dafa xaram gis nga même carte yi gis naa ko fi sama mbokki jàngalekat yoo xam ne dañ koy yor dem ci Matlabul Fawzayni da nga danga nga ci def sa sa doom yi nga am yépp ordonnance bi bu kenn amee ordonnance ordonnance bu doon 10 000 la war a jar trois 000 lañ la koy jaayee dafa xaram et parce que assurance boobu mën ngaa dund ba yow ba at yu baree bari doo feebar te la ngay fay par weer xam nga carte bi da koy fayal par weer assurance boobu carte bi da nga koy fayal par weer loola boo ko dajalee mën naa ëpp mën naa yées moo tax jëflante yooyu yëpp daa xaramte ci riba bii lay dugg te mi ngi fees dell da ngay ànd ki nit ñu koy def bari lool kon même oto assurance oto fi mu toll xam nga lan moo tax mu daggan ci yow mooy daa mënta ñàkk ci yow ndax boo ko defut doo dawal oto waaye dafa xaram ndax mos mënoo assuré di dagg te boo accidenté ca lañ la war a fay léegi boo dawalee oto nangami at accidenté wu lépp da nga koy perte jëflante yooyu yahud yi ñooñu ko fi indil mu ànd ak maçonnier muy franc bi ñu forcé ñu ko ndax lay laïcité waaye yëpp a arab nga xam ne boo ko doon benn benn nii tey da ngay dem ba boo fi jógee da nga naan man lu ma soobu rek daanaka daa xaram am na ci loo xam ne lislaam daal la ci may ngànt waaye am na ci loo xam ne eh, du la ci may ngànt mukk ndax man nga koo dindil sa bopp lépp loo xam ne mën nga koo dindi sa du la ci may nga am yu ci ëpp nag ci ma wax fii yu ci bari jullit bi mën na koo dindil boppam moo ko teg bopp kon mu mel ni waxtu bi dañoo xott waaye eh, nun lu ñu waroon wax yaakaar naa moo ëpp thème bi <laughs>